bismillahi rahmaani rahim barke Tuuba ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom ñett fukk ak benn sëriñ xaasim mbàkke radiallahu taala anhu bi muy gone daana faral di feeñal ay kiimaan baayam andi ko ci sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtar loo wax ko ko mu ni ko du dara daa am xaas xaas mooy ak jagle siiw na abdul baaxi moo doonoon aw li ci ëpp foo kuy man lu mel yu noonu ci ak ndawam waajuram ku sell lay doon te nëbbutu sunu boroom di ko feeñal ci doomam wala muy boroomub cër jaare ci moom wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar loxo mas naa toog yore téere bu rëy ubbi ko am naar toog ci wetam muy tibb warga di ko defal waaye bu sëriñ bi sottee mu faxas loxoom ba mu set ba ñu noddee sëriñ bi ni bërit bàyyi ko fa siiw na lépp lu lay jaaxal ci jëfin yi xamal ni ñamu koy jëf leen teel ñoo bokkut ak nun benn ñuy yeneen nit wala jinne wala malaika wallahu alam soxna xawaa bu sa radiallahu taala anhu mas naa tàggu sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo ni ko sëriñ Aafiyatu Ñaŋ radiallahu taala anu daam am tudd sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo bind Ahmadul Mahmud wërale ko mu dajaa ko wërale ni ko na ngeen koy woowe Ahmadul Mahmud wala Muhammadul Mahmud te bu ko kenn soppi yéen jolof jolof yi fi gën a mën a soppi aw tur waaye bu leen ko wax moodu bu leen ko wax momar dee leen ko wax ahmadul mahmud wala muhammadunul mahmud dee nga mu ne ko waaw siiw na am na wuute ak bu njëkk ba kon daa ñëwoon sëriñ tuba xaadalahoo law maxtaaralahoo moo digaloon soxna xawa buso radiallahu taala anu muy jàng ak ik ni ko loo tëlee tëlee jàng na nga fexe ba mokkal ko boo ko mokkalee bu ëllëgee yawmal xiyaam ci jibay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ngay dekkee siiw na andi woon naa ko waaye wuute waxe ni moo tax ma andiwaat ko wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na bu ma doon jaay xam ngeen luy sama njëg ñu bari nu ko amoo njëg sëriñ bi ni leen aha mooy bëgg siwna na faawu da ngay bëgg yàlla bu wér te mooy sëriñ bi door a mën a jariñu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira wallahu aalam sëriñ tuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo sunu boroom dama bind ci makarimul axlaax ba bu ma ko bëggoon a génn sax duma ko man wér na lool لست أميل لسوى ما يرضي رب السماوات ورب الأرض أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أخمن سرين Tuubaa قادر ولو مختار له àggoon na في الجيكو jikko كم xam ni ku mu jëflanteel wallahu aalam sëriñ fadilu ak sëriñ aafiyatu ñang radiallahu taala anhuma mas nañoo ànd siyaare sëriñ tuba xaadaloo law maxtaaraloo bay dem sëriñ bi ni leen leen suuf bu ngeen demee na ngeen sant yàlla bu baax te xam ni yéen damintu du xoolakumul jannata maa leen warlul ajjana da ko bind ci suuf tibbu ko jox leen wér na sëriñ bi bu nu xoolee xam ni mbooleem ñi muy warul ajjana ku nekk defloo na la loo xam ni bariwul ñu ko man walla ñu ko def door la wax loola wallahu alam sëriñ xaafiyatu mbàkke radiallahu taala anhu mas na indi doomam ci sëriñ tuuba xaadalaw la maxtaaroo ni ko fu ñu ko yóbbu ngir mu jàng du fa nangoo toog sëriñ bi wax ko mu toog amna na bu fa nekkoon bu def dara mu ni ko raxasul te barkeelu fii amna na keneen ko fa nekkoon mu ni ko wettali ba mu noppee sëriñ bi ni ko habdu yow li sa baay wax moom lu tax mu wax la ko da nga bañ a jàng mu ni ko bañu maa jàng waaye dañu may bayloo sëriñ tuba xaadaloo law maxtaarloo ni ko habdu dama bëgg nga góorgóorlu jàng alxuraan te mokkal boo mokkalee alxuraan li des ci yow lépp maa koy mottali dégg nga mu ni ko waaw siiw na kon noo ngi gis doxiinu sëriñ bi ak i jëfiinam ni muy feeñale makaarimul axlaax ci lépp ñépp dale na jàpp ay doom ndax lii mu defal kii bu doon doomam itam mënu ko weesu ci saahir yal na nu yàlla dimbalee topp ay ndigalam ak daw li tere fàww wallahu aalam Sëriñ Tuuba xaada la woo la woo nee képp kuy jëfandikoo lu am suukar warnay jëfandikoo gura kuy jëfandikoo gura yitam war nay jëfandikoo lu am suukar ndax lu ci nekk am na lor joo xam ni moroomam moo koy dindi siiw na lu mel nii danaa koy dégg itam ci senjang ak lem wax nañu ni lii day wàññi ndoxum yaram lee di yokk ndoxum yaram ba tey bu ñu xoolee ordonnance yi tubaab yi di bind itam dañuy gis na ni néew na lool lu ñuy bind genn garab dongo ndax garab yi dañuy dimbulante gii garab day mën a àgg fii ci yaram yi gee garab mën a weesu foofa ba tey noonu la amee ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla gu nekk am na lu muy jariñ jëmm ji naka noonu mooy yàlla gu nekk am na lu muy lor ci jëmm ji yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wallahu alam ñëwee ci nettali téeméer bi ak juróom ñeen fukk Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo nee na weeru safar ak weeru gàmmu lu waay di sàkku boo ñëwee tubb ci suuf si am ci pas-pas mel na ni maa ko jox ci sama loxo bopp siiw na njeereem xëy na danañ wax ni am na ku mas tibb suuf jox ay nit te booba gisul sëriñ bi sëriñ bi wax keneen ni ko jox naa suuf diw loolu li muy xamle moo di ànd gi mu ànd ak ñun ci lépp waaye itam ci kem pas-pas yi lay àndeeg nun wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax lu mën a génn na génn lu diis nañu ko fa bàyyi booba këru njaareem gi moo amoon ak lakk ba mu amee ñaari fan mu wax ni nañu ko yeesalaat ku ñuy wax sëriñ góora radiallahu taala anu wut ay cheng yu tal ak i pont ñëw di daaj sëriñ tuba wala la moxtaarlowoo génn ca buntub salum bi wuti buntub gànnaar ba ni mbàkke jaxate demal seetal ma lu yëngu mu ñëw ci moom sëriñ góora radiallahu taala anu ni ko dama dégg ñu wax ni moo digle ñu yeesalaat kër gi man nag saa wàll nii laa koy def mu ñëw ci sëriñ bi ni ko day bardaasu wàllam ndax nee na yaa digle ñu yeesalaat kër gi sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar loo ni ko luy bardaas mu ne ko sàkketu weñ sëriñ bi ni na ñépp toppandoo gura bi ma fi ñëwee ba léegi lépp lu ma fi masa fekk ci lu baax gura am na ci wàll walla gura yàlla na nu yàlla dimbale ci pasteef ndax mel na ni liy sotti li ci ëpp ci lay sottee wallahu alam sëriñ gura radiallahu taala anhu bi mu faatoo ba ñu denc ko ba nopp ñëw mel ni ku koy jaale sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaar lawoo naa ko sant la sëriñ bi ni leen moo leen gën a sant ndax léegi la fi jóge weer na ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرشقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله الحكيم سرين توبا قاد الله الله مختار له أمنكم مسرح xam nga gone gu am xam-xam te amulub yar nu mu demee mu ngi mel ni boroom doole ju yor ab xaal dem ba ci detti mber mooy kekk wala fu leer mu wàcc ko nu muy def mu ni ko tasar Sëriñ Tuuba xaada lahoo la maxtaloo ni ko noonu la deme siiw na fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ilal ada wa taabi daa mel ni xam-xam mooy xam ni yoon wii moo jëm jumaaja bu loolu amee ba noppi nga bëgg a dem jumaaja faaw nga dox wala nga dugg loolu mooy jëfe ginnaaw xam-xam boo dee dem faaw ngay def ndànk di teggi wala nga dal ci kaw dara wala dara dal ci sa kaw loolu mooy teggiin wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na digal naa leen ngeen wattandiku seytaane ndax ak yàqam njëlbéen ngi day mel ni ku lay defaral te mujj ngay door a xam ni ak yàq la li tax ngeen mucc ci moom moo di ngeen xam ni ab sàcc la fuñ ko foogiwul rek ka lay ñëw mbir moo ko foog mu daw ca siiw na laa taamanu makaida shaytaani qabla firaaxi ruuxi lil abdaani wa man yaxshu an zikri rahmani nuxayd lahu shaytaanan فهو له قرين والله أعلم Sëriñ Tuuba xaadalahoo law maxtaalahoo nee na ku la ëpp poña xiitum adduna moo yërey adduna wala yëfi adduna moo lay ëpp mbugalum bàmmeel wax nañu yonente yàlla suleymaan alayhi salaam mooy mujj tàbbi ajjana ci yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ndax bërile gi mu bërile woon ci adduna wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la bi muy dem ci géej gi wax na Sëriñ Moor Penn Mbàkke radiyallahu taala anu bul denc te ñëwma muy bul denc soxna te ñëwma bi Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la ñëwee la ko dencal siiw na am na jëmm yoo xam ni sëriñ bi da leen dugal ci biir boppam ba tax na waxtu wu nekk mu leen di xamal lëgën ci ñoom ak ni ñu war a àndeek moom tolluwaay yi bokkul nit ñu bokkuñu jamono yi noonu wallahu alam sëriñ moor penda radiallahu taala anhu bi ko sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho di yabal tuuba dañu ko demal ci sama dëkk bu tedd ba te boo demee bu ma ñooxu ñooxu mooy sës ci moom xëy na siiw na sama dëkk bu tedd ba loolu ak soññ la bu baax ci ñun ñi nekk tuuba ndax Serigne Touba xaadala wallahu makhtar loxo lu mu wax ni tedd na day tedd ba faawu nun ñàlla defal ñu nekk fi nanuy daw tere yi kem katan tay farlu ci julli juroom ndax ñu mëna deggal ñaanu Serigne Touba xaadala wallahu makhtar loxo te am na ba noppi wal tusbitan fihi jamaatan tuqim al-khamsa daban ya hakim tay jang xasidaam yi quranam ji wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada loxo law maxtaar loxo bi mu jógee ci géej gi ba ñëw Daaru Salaam waa kër Sëriñ Ibra yi ñëw nañu fa di ko siyaar muy leen ana doomi saa baay Mbàkke Ibra ñu daan wax xamar ñu ni ko daa nekk bërëb sàngam bu jëree jëli sëriñ bi ni lépp a ngi nii ma tiim siiw na am xam-xam teewut a laaj sëriñ bi tey leeral nañu lépp la tiim nee itam du faatu kon war na képp ku dib taalube ngay bàyyi xel ni mi ngi ànd ak yow ci lépp boo ko gisee ak boo ko gisul in lam takunu xad raaytumuhu fa huwa yaral kulla faraqibuhu sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar loo mas naa wax sëriñ maxtaar silla radiallahu taala anhu mas na ko wax gones tayba si ñëwal ma yónni la ca magi tayba ya boo demee neel magi tayba ya loolee ñu nekkoon nañu ca sax bu ñu ca iya. nekk dana leen fa fekk fu ban nekk lu mu leen jige jige du leen laal ndax taxu leen a jug siiw na loolee waa tey ba man alxuraan lool di ko di ko jàngale di moytu tere yàlla subhanahu wa taala seen kem katan di dunde seenu ñaq loolu ku nekkul Tayba bokkoo ci ñoom itam boo ko defee sëriñ bi dalay limaale ci ñoom wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo mas naa yónni sëriñ Mandumbe radiallahu taala anu ak gaal ba noppi yàkkamti ko di ko soññ ba mu àggee yëkkati ko mënu koo yëkkati sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo ñëwal boppam yëkkati ko ci benn baaraamam mu ni ko lii nit mënu ko sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaar lawoo ni ko mësumaa def lu nit man sëriñ bi bu waxee mësumaa def lu nit man ba noppi di julli di woor di bind nit ñi di julli di woor di bind danañ war a laaj loolu mooy lan bu nu laajee loolu xel dañuy xamal ni ni muy jullee ak ni muy woore ak ni muy binde la nit ñi mënul ci misaal xasidaa mi loo sori sori ca yàlla subhanahu wa dana ñu la dolli di lay yokk ba li nga bëgg lépp nga am ko di lay yóbbu ba mu wóor la ni yow fii nga mën a yem te boo mënoon a jàll ñu yóbbu la faneen te gis nañu ay wayla la ak i wax yu mel ni waxe arab yi naka noonu léppam ni la mel wallahu aalam sëriñ baara gay radiallahu taala am na naar bu masa jàpp ci loxoom di ko booleeg sëriñ tuuba xaada lawo lawo maxtaara lawo sëriñ bi tibb ci xaalis bi ni ko am jox ko muy waxaat sëriñ bi tibbaat ni ko am jox ko mu daldi bàyyi loxoom sëriñ bi ni ko xaalis lañuy wut wér na lool nee sëriñ bi bëggul ku laal benn naar boo ko defee du baax ci yow sa digg moom bu fakkee moo la def loolu mel noonu moom du la wax dara mel ni daa wax ni bu ma kenn fekk fii am naari ñëw bëgg a jàll nga téye ko wallahu alam sëriñ bi nee na fukki junni at la di fukki xarnu lu fi sunu borom digle ci jaamu ko te defuñu ko def naa ko fi wér na daa mel ni wax ji daa am lu ko jiitu am na waxtaan wu muy nurool ci suufu njaareem la doon wax booba wallahu alam taalibe balaaloon naar ba ba mu yuuxu ca gànnaar ba sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaar loo waxee ana def lii sëriñ maxtaar penn ñang radiallahu taalu moo ni ko amul solo sëriñ bi ni ko muxtaar bul wax loolu kat waxal ki ko door rekk ba mu ñëwee sëriñ bi ni ko andil loo am te tuubal ko sakaala ci sabaat xëy na takkal sakaala ci sabaat la ko bëgg a wax bu la jéggalul baya boo dem téeméeri junni ak ñetti junni ak juróom ñaar ñoo di aw labdaali ci kaw suuf koo xam ni doo gis lu bokk ci ñoom ba xam ko war nga koo gis boo ko mënta teral nga gàttañ lu ci moom ku ci tooñ kenn bu la jéggalul ñoom ñi ñépp bu ñu daje woon du ñu la mën a jéggal wér na lim bi mu wax ci labdaar yi benn moom mi nettali fàtte lim bi wala fàttewu ko bu fekkee nii mu ko lime ni la ko sëriñ bi tudde kon li muy xamle mooy lim yi ñuy wax ci téere nit yàlla yi woote na ak lim bii wala mu fàtte ko moom mi nettali kon loolu li muy xamle mooy lim boobee ci seen téere mooy lim bu wér xoolal jaamihu karamaatil awliyaay xaaj bu njëkk ba yusufu nabahaani moo ko def radiallahu taala anhu sëriñ tubaa xaadaloo laaw maxtaar loo am na ku mu masa jox dara mu ni ko jasaakallahu xayran mu joxaat ko mu waxaat ko mu joxaat ko ba mujj waxul dara sëriñ bi ni ko dangaa sonn boo bàyyiwul duma bàyyi ak jullit waxut mbokkum jullitam baat bu gën boobu siiw na ñu ñëw ci nettali ñaar téeméer bi ak juróom soxna Aminta Lo radiallahu taala bi mu faatoo am na ko Sëriñ Tuuba xaadilahu law maxtaloo wax sunu xarit ba maag yow wuy ji na boroomam siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaar mas naa wax sëriñ muhammadu mustafa radiallahu taala anhu sama tabax ba ca tuuba na nga ca damm sab loxo damm naaja ca sab loxo te lépp lu koy taxa a sotti na nga ko def siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaar mas naa wax sëriñ muhammadul mustafa radiallahu taala anhu baatin bee ko nëbbu ni ñuy nëbbe lu ñuy tere bu ci tooñ bu ci fay siiw na daa mel ni baatin ni mu taxawe fii mooy karaama wala kiimaan ndax bu ci tooñ la wax wallahu aalam maam Ceerno radiallahu taala anhu mas naa jox Sëriñ Tuubaa xaade lawo law maxtaar lawo ñaar fukki junni ak juróom ñett sëriñ bi dénk ko soxna Hawa Usaar radiallahu taala anha ba ñuy tàmbali jumaa yi njaareem mu ni ko andi ko daa wax ni bopp bu nekk na joxe ñaar fukk ak juróom ñett maam Ceerno ni ko ndax mën nañu ko siiwal sëriñ bi ni ko ba kirikora kirikora ab dëkk la bu amoon ñu ci dul bokk waa Tuubaa lay doon ndax ñoo ma dëkkal ci sama dëkk bu tedd ba siiw na yal nañu sax ci dëkkam bi te koy joxeel wallahu aalam ñëw ci nettali ñaar téeméer bi ak ñeent sëriñ Habibu Mbàkke radiallahu taala anhu nee na li mu topp ci ginnaaw sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaaraloo lépp muy julli mësuta dégg ci moom muy tari li lu weesu ina ansarnaahu ak li ilaafi xorasine ginnaaw fatiha wér na loolu mooy li mu moom am na yeneen nettali itam yu yuy xam ne ni daana tari la neen naka noonu jullik tabaski ak korite daana tere wasamsi ak sabbi isma ginnaaw fatiha mel na ni jamono ju nekk ak lamu cay tari ak lamu cay def wallahu alam sëriñ Mbàkke Buso radiallahu taala jamono yi muy ànd ak sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo daana ko jox tuuti baraay bu tàmbalee sëriñ bi ni ko yaa ngi gaañ sa bopp siw loolu néewal ak lekk la jàngal nee na bakkan ci néewal ak lekk lanu koy mane bakkan nag boo ko manee lay njariñ la mooy góor góorlu ci lu baax lañu la tànnal waaye boo ko dul def di neenal waxtu du am benn njariñ bokk na ci njariñ yi néewal ak lekk day yokk am xel di sawarloo ci tudd yàlla subhanahu wa di néewal say nelaw di yar say cër néew na kuy suur ba noppi yaru lool yal na nu yàlla dimbale ci barkeb sëriñ tuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo sëriñ tuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo daana faral di yónni sëriñ Moussa Halima ak sëriñ Modou Cissé radiallahu taala anhuma ci lu mel ni pusa wala ay koppi xudar koppi xudar wala kaasi xudar dañoo wax ni xeetu kaas la woon wu sëriñ bi daan xellee kafe wallahu aalam